maa ngi lay ziara di la nuyu di nuyu Baay Faal tax ñu xam la soxna Aida soxna ayda ngir yàlla déglul message bi àdduna du yàgg mukk ba jigéen nekk mu xaddam wala sëriñ amul ci diini l'islam parce que inna diine inda allah soxna Aida ba may yaa yëy yaa yëy màggalee mbuur parce que Baay Faal yi Baay Faal yi nelawu noonu jigéen nan lay nekk muxaddam wala ustaat wala sëriñ doone màggalu or màggalu xaalis màggalu puukare ay soxna loolu sëriñ Tuubaa yërëm amul poos Sëriñ Faal yërëm amul poos Sëñ Saaliw yërëm à part mbubb yu mujj yi te soxaw si dara rëñ muy soxna Aida te franc-maçon yi ñoo lëpp xaalis foofu ak góor jigéen yi ak ñu bokk ci xeetu lislaam mais duñ ko def bu tey ko bugg jaar Sénégal si yoonu diine si Baay Faal li ngay jaar bu kenn salteel soxna Aida bu Seex Béthio cuun doo mu doo sëriñ jigéen nga bu amoon sa boroom kër sa boroom kër làqu na dem nga xooli leneen nga sëy Baay Faal yi dofunu Sëriñ Tuubaa nelawul àdduna bi ba benn dëkk am titre foncier muy Tuubaa Daaru Salaam Sëriñ Tuubaa moo ko liggéey yoonu murit mënoo si yàq dara mënoo si salte dara man a waxuma pour amay bës mbaa pour ay kere dama la wax pour dimbali la soxna ayda soxna ayda lan nga jigéen nga soxna Aida jigéen nga lan nga lan mooy sa problème soxna ayda yow yenent nga wala malaaka nga yow jigéen nga li ngay génn ci suuf kenn xamu ko mais Baay Faal yi xam nañ ko bëgguñu wax te bëgguñu la weer àdduna du yàgg mukk ci àdduna ba jigéen nekk sëriñ wala mu xaddam amul jigéen du jiite ba mel ñi la topp nag ak ñi lay sukkal di la raamal ñooy ñooy ay jaahil yow jàngaloo xam-xamu sharia benn jàngaloo xaqiqa ñaar jàngaloo maarifatu billaah mooy enrifoon yi jàngalewoo xam-xam ko la xam yàlla